léegi mënu woon continuer am une vie active autrement que ñu nommer ko général pour mu am statut général. li li motivation bi justement. ci laay ñëw nii c'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. motivation bi mooy. Euh, le non, président non mën nga mën nga mën nga daaneel d'abord. balaa nga ciy ñëw. waaw le président Macky Sall. Oui. compte beaucoup sur cet homme. Euh, et on le saura prochainement parce que. Mhm. Euh, man annoncé woon naa bu yàgg. ni ñoom am na lu ñuy wàcc. te dinañ ci communiquer te liggéey boobu dafa am ñu mu ko séqal mais am na lu mu ci mën a jukkee jukkendi par rapport à l' parce que lii ce n' mais li ci biir a biir nañ def conférence de presse euh, euh, leeralal Sénégal yi lu bëri ci loo xam ne ñu ngi koy teg euh, te fi mu jëmee dëkk bi baaxul foog ñu gàttandu lii raam jëm ci ñàkk bi fexe mu bañ ci àgg donc donc colonel Maître Sélé Ndiaye dafa waroon dem retraite ñu nommé ko général comme si ça ne suffisait pas ñu yokk euh, sur le même décret euh, prolonger l'âge de la retraite des généraux à 62 ans léegi loolu ça l'amène jusqu'en décembre 2023 mu jël retraite mais man je me toujours di que même bu àggee décembre 2023 euh, lui c'est Kandé hein celui qu'on montre là oui. Euh, même bu dee décembre 2023 euh, bon Macky Sall va faire le mort mu prolonger son mandat ba 2024 comme ni mu ko defee euh, ki nekk euh, Sénat le liir la ki xam ni waroon na dem retraite bu yàgg ñu maintenir ko il en fut euh, de même de fonctionnaire de la DAF Diallo moom tamit dépassé woon na âge. conseil constitutionnel ça a été le cas aussi. conseil constitutionnel aussi comme moom ñu ñu va prolongé ko de quelques mois mënoon na ko. Mm. mais daf ko formaliser ci conseil ministre ministres démb. Euh, vous me permettrez de lire un document pour la première fois. J'aime pas euh, regarder mon téléphone dans, dans une émission. Mm-hmm. xam mm nga -hmm. euh, mais dafa baax euh, donc tey démb euh, le le onze euh, non pas pas démb le onze la jël. Mm-hmm. bërki démb la veille du conseil du ministre. Le, donc le onze octobre la jël benn décret. donc décret euh, 2022 1875 wala 1875. léegi intitulé décret bi décret bi benn nit la concerné décret euh, vingt euh, deux mille vingt deux euh, mille huit cent soixante quinze portant maintien dans le service actif dans le service actif d'un officier général point mm-hmm. loolu rek mooy moo tax a jóg décret bi décret portant maintien d'un seul Euh, euh, dans le service actif d'un seul officier général. dafa doon dem à la retraite. non moom prolongé nañ ko ba décembre 2023 mais léegi attends décret bi daf ko prolongé. Mhm. ba le 5 avril 2024. oui mu maintenir ko en activité. Mmh. parce que deux ans boobu mu ko yokkal décembre lay jeex. Mhm. léegi mu jël décret. c'est-à-dire moom c'est le roi quoi. parce que ça veut dire soxla na waa ji li mu koy doyee nag loolu la ñu war a leeral Sénégal xam nga parce que kooku moo yor xaalis bi moo yor l'oreille di président donc moom li muy waaj ci wàllu waa wàllu armée mu ngi teg ay nitam président Macky Sall joxewul benn signalu nit koo xam ne dafa war a joxe nguur gi parce que nguuram jeex na constitution bi arrêté na ko à quelques mois de son départ lan lay organiser ay généraux autour de lui bay jalgati ay yoon par son décret léegi 5 avril 2024 mooy deux jours après la prestation de serment le président le 3 avril mm -hmm. n'est-ce pas yeah. donc au moins euh, le général Meïssa Sélé Ndiaye sera là jusqu'au la prestation de serment jusqu'au lendemain la Jusqu fête de l'indépendance prestation de serment pourquoi cet agenda donc merci pour le décret léegi voilà on va lire ensemble euh, l'article premier est, est le seul article important il dit à compter du 19 décembre 2022 hmm? mm -hmm. par dérogation donc il vise le décret euh, euh, 2021 donc euh, euh, 2 décembre euh, de 2021 par décret numéro 2021 1579 mooy bi ma waxoon du 2 euh, du 2 décembre. Mm-hmm. léegi daf ci apporter une dérogation une disposition dérogatoire dérogation pour une personne qui s'appelle général mais Sélé Ndiaye. Mm pour prolonger pour le maintenir en activité jusqu'en euh, avril avril 2024 donc après la prestation de serment donc ñun ñi nga xam ne xam nañu lu muy lal bañ ci alerte yàlla xam na ni yàgg na man maa def exprès temps yi di distiller turu général Meïssa Sélé Ndiaye ci sama communication Meïssa Sélé Ndiaye pour bu luy ñëwee mu ni tilt dans les têtes ñun nag ci démocratie la ñu nekk yaa ngi naan est-ce que jëlul ay dispositifs pour sécuriser le Sénégal mm-hmm. non parce que euh, euh, à la tête de l'armée de terre aussi mmh. il a nommé le général Kandé c'est un bon militaire valeur moo woon les opérations pour le démantèlement des, des bases des, des, de rebelles MFDC. MFDC. Mm-hmm. mais il avait porté une accusation mm-hmm. ni gis nañu dans un puits ci biir benn teen ay documents yu compromettre un leader de l'opposition je veux mhm. citer personne loolu kooku tey jii moo yor armée de terre mhm. te ñëpp xam nañ ni opposition bi kan mooy cible ci opposition bi fi mu nekk bi tout le monde le sait c'est Ousmane Sonko alors donc euh, euh, chef d'état-major particulier am changé na ko mhm. euh, bunkeriser na conseil constitutionnel yóbbu ko ancienne ambassade États-Unis ba noppi mu ngi poser ay jalons sur le troisième mandat et puis Mimi Touré quand elle parle parlant de Ismaël Madior et du chef de l'État quand elle dit que bu ngeen fi indee affaire au troisième mandat vous serez euh, attiré devant la cour pénale internationale mmh. cour pénale internationale ay crime ak génocide les atte donc elle elle pense étant ancienne premier ministre aux conséquences d'une troisième euh, aux conséquences du troisième mandat parce que war na xam ni am na disposition répressive yu ñu jël répressive yu ñu jël à l'endroit des population yoo xam ni saa va forcément entraîner des dégâts gis nañu fii rek événement le mars il y a quatorze morts te y avait pas toute cette armada là léegi bu ci dugalee armée ci maintien d'ordre dugal ci ay ay ay nervi euh, dugal ci ay ASP dugal ci ay ay ay ay policier auxiliaires volontaires mooy ñooñu ñu dolli ci effectifu police yi dañu am leur commandement spécial parce que les commissaires d'arrondissement mënuñu leen jox ordre ñu exécuter ko forcément ils ont leur supérieur à qui ils obéissent seuls et ils font du zèle des excès ils sont couverts et protégés lu ñu def dara du leen ci fekk ils ont carte blanche pour brutaliser les gens donc dispositif yi mel noonu ku koy teg euh, dafay mel ni da ngay waajal na boo xam ni yow yaa waroon nekk le garant de la paix bu dee loolu ku ci wax nag ñu attraire la devant les tribunaux ñun du ñu fuir le débat public parce que l'actualité on a la liberté de la commenter on a notre liberté de jugement et d'opinion qu'on doit exprimer quoi qu'il puisse nous en coûter parce que dégg naa je le répète am na ko wax ci Moussa Fall je sais pas ce qu'il a dit ci Moussa mm-hmm. ñu téye ko pour loolu sa ne nous empêchera pas de commenter les en direction de l'armée et de la gendarmerie. Partant, partant de constat. Partant de constat. Oui. s'ajoute à cela xam nga ne am nañu fi base mili militaire américaine. Oui. la plus grande base militaire américaine. de l'Afrique de l'Ouest oui. se trouve ici au Sénégal. et donc on dit que c'est la plus grande base américaine dans le monde te ñun yëguñu xamuñu fu mu féete tinuñu. dans la région de Mbour dans la petite côte c'est-à-dire maa ngi ñëw ci loolu. xam nga euh, front de mer bi Almadi fii. Mhm. jox nañ leen fa huit hectares. fi ambassade bi nekkoon. fi ambassade bi nekk ak li mu leeru tiim géej foofu dañ leen fa jox donc ñoom ñu ngi jël ay positions stratégiques ci dëkk bi.